acuudu billahi min alsheytaani fi kulli mawdihin wa fi l awtaani bismi lilahi wa huwa arrahmaanu wa huwa arrahimu qaada lil amaanu alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana al huda abada sayidina muhammadin wal aali wa saxbihi dawina walil waali laqil lisaani waxlulan min hul uqad waj'alhu dhaakiran wa shaakiran abad waj'al kalaami raashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaan alxikam faliyahab bil mustafa xayra shiyam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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 Eh, ni mu amee solo ci am réew ak ci aw askan moom mbay maanaam agriculture sëriñ Malick Bassine dafa waxoon ne mbay de waaye mooy boroom réew mi teen mooy borom dëkk bi maanaam ndox man ma teg ci ne cin mooy borom kër gi réew mu desal gannaaw mbay desal gannaaw ay baykatam gannaaw rek lay jëm waaye kenn mënu koo jame kanam dëkk bu amul ndoxit dëkk sàngam rek lañuy rootee ji kër gu cindul tàkkit léegi tey mu tas mbay nag dafa doon loo xam ne ni dëkk yi gën a développé ci àdduna yépp dañ koo teg ci seen kanam teg baykat yi ci seen kanam favoriser leen jiital leen te it mbay dafa bokk ci métier yi gën a barkeel sëriñ Malick Bassine daal cay teg ne mboole métier yi mbayee ci gën a ñeme njaboot ñu ne ko lu tax mu ne ah nawet rek lañuy bay te noor dañuy lekk bëccëg rek lañuy bay te guddi it dañuy lekk mag ñi rekk ay bay te gone yi it dañuy lekk dëkk yi rek ay bay te gan yi it dañuy lekk ñi wér rek kay bay te ñi wér di dañuy lekk te ñun waa Sénégal suñu borom dimbali nañu defal nañu tawfiq ba may nañu lu bari dëkk yi nga xam ne nii euh, bay moo leen développé muy dëkk yi ëpp doole ci àdduna muy Amérique muy urop muy asi moo ne dëkk yooyu day yàlla nattoo na leen ñett yoo xam ne yoo xam ne nattoowuñu ko ñun te ñun yàlla may nañu ñett yoo xam ne nii lam leen ci may bariwut la yàlla natoo bokk na ci mooy ay montagne yu jeex ay xeer yu rëy yu wow waaye danañ fexe ba boo demee Israël sax ñoom dañuy fexe bay def di bay ci montagne artificiellement yàlla nattoo na leen galaas guy jale gu bari ay weer yoo xam ne nii dara la jurut man lu bàyyi ba mu seey yàlla nattoo na leen ay ouragan ay ndox yuy daw ànd ak ngelaw di yàq ak rey te yàlla nattoo wunu ko ñun yàlla may nañu suuf su tàlli dangay daw ba sonn lépp di suuf su yaatu yàlla may nañu ndox boo gasee tuuti amum ndox yàlla may nañu jant ndax gàncax ni soxlaa ndox ne la soxlaa itam jant yàlla may nañu itam lu bari day ñor senegal daanaka lépp boo bayee gerte mu ñor boo bayee dugub mu ñor yàlla may nañu buy ci lay jëlee wuy wi sax di leen indil ngeen di toj aka njambaan ak segg yàlla may nañu bisaab may nañu màdd may ñu ditax may ñu màngo may ñu limon may ñu banaana may ñu mboq may ñu sëp may ñu bele may ñu may ñu ba boo ko doon lim du jeex wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kenn mënu koo lim yàlla may ñu it lu jëm yépp di ñor Sénégal baykati Sénégal it di ñu am jom te amuk njàmbaar malgré li ñuy ñàkk matériel lépp bay jotee dañuy futteeku dem bayi ci seen doole ak seeni yoxo moo ne dëkk yi day danga fiy gis tool boo xam ne dangay xool ba sa bët te kenn rekk koy bay ngir technologie ak matériel te fii day seeni baykat ñoom duñu ay baadoolo waaye ay buur lañ duñu ay pauvre waaye ay patron lañ seeni syndicat yi ñooy syndicat yi fi gën a dëgër yoo xam ne buñ ñu sëqatee seen gornement yi defal leen liñ bëgg ndax xam nañ ne ñoo yor moteur yi doxal seeni dëkk baykati Sénégal dañ leen a jàppalewut état yi dañoo desal gannaaw bay ak baykat ndax nëgë ne waroon naa fekk ñuy bay saison ak contre saison maanaam di bay noor ak nawet waroon nañoo amit li ñuy wax transformation ak conservation maanaam yooyu ma lim yëpp wara seen na ko mën a transformer ba di ci jariñu waaye tamit di ko euh, yóbbu bitim réew di ci développer sunuy dëkk ndax bu la yàlla joxee lu am solo te amuloo ko solo nit ku ñàkk solo moo ñëw ñàkkalal la ko solo ba jot ca jotee jotin wu ñàkk solo yóbbu ko fa mu dëkk amal ko solo te loolu dal nañu suñu diggante ak tubaab yi ak sinwaa yi bu ñëwee yu bari buñ ko jël ci ñun dañuy mel ni amuñ ci soxla te moo leen tax a jóg te buñ ca jotee ba indi ko ci seeni dëkk de dañ koy seeral lool bu fekkoon ne sunu état yi jiital nañ bay ak baykat yi kon taax yi nii mu feesee ak i nit du ni feese ndax nit ñi wut si ci taax yi dara lurut luñ dundee ndax àll ba dara defaa nekkut rawatina dakaar bu fekkoon ne jiital nañ bay ak baykat yi kon ngone yi nii ñuy mbëkkee di dem barsa ak barsaq dana jeex mbaa mu wàññi ko bu ñu jiitaloon bay ak baykat yi kon senegal yi nii ñu tasaaroo ci dëkki jàmbur yi di fi tumuranke di sonn seenum réew di sonn bitim réew kon mën naa ñàkk tey li gën a néew mënoon nañ koo am muy fexe ba mucc ci xiif ak mar ak rafle ndax réew mënta jëm kanam mukk lu dul ne dafa am li ñuy wax sécurité alimentaire bu ñu amut luñu ñu dencit am lu ñu lekk kon état bi nañu geesuwaat baykat yi te geesu mbay mi te bañ koo politiquer ndax facteur de développement la boo xam ne niikat réew mu ko jiital da nga jiitu waaye réew mu ko desal gannaaw it da nga des gannaaw ba faw muy mbay ak baykat yi te état continuité la bu fekkoon ne ku ñëw def dara keneen ñëw def dara léegi tey muy dara kon nañ góorgóorlu te farlu bu baax baykat yi yàlla na leen sunu borom dooli sutura te dooli leen dimbal ndax Cheikh Abdoul Ahad noonu na kat ku yàlla dimbale kenn du na mënal dara kum suturaale kenn du la xamal dara